ngi leen di fay bu baax a baax. papa tey maa xam nga ne bépp presse en ndax ñun lii la yaakaar. dañoo gis ay yenn promoteurs yoo xam ne dañoo pare pour xeex ko. te xamuñu ñaata nit la dundal. dëgg la ñii ñaata nit ñoo nekk seen ginnaaw. tey Sénégal yëpp pare pour xeex ko papa yow nga sigil ñu. sagal yow papa yow la ñuy tiitaroo wax tey sa bis nii. waaw damay am mbégte lool déjà di wax ne. li nga njëkk a wax dafa am solo yéen da ngeen bokk ci ñun ndax fii Sénégal rek la lépp lu fi waay mun na am xamuloo kañ nga ko fi bàyyi man na doon suba man na doon tey kenn xamul daal na yéex ci barke alxuraan donc tey euh, mbégte laa am parce que lii daf may fàttali ay bés yu bare ñu doon def bu njëkk ba ma ciy ànd ak nag et les grands noms de la lutte yi fi nekk tey te événement bépp boo mun di dëgg parce que ñu ngi doon mbébét nii buñ jógee fii dañuy dem tëggi Tambacounda le 12 juin te boobu tamit niñ ko defee nii noonu ngeen di ñëwaatee yéen ñëpp ànd ak ñun lépp lu war ci yéen dinañ ko def ànd ba fii ba Modou Lo Ama fu ñu munti dem dañ fay ànd dañuy liggéey tey leen wàccuwaay dinañ lañ ko jox te dinaa ànd ak yéen ñu waxtaan ba xam liggéey bi nuñ ko mën a ñoŋalee ba wax dëgg yàlla ku ne gis ci boppam ngeen gis ci seen bopp ñu gis ci suñu bopp lépp jaar ci yoon yi. soxna dañuy xeex. te dafa bari ci ñun ku ci lii nga tey ñun boo fan la ñu jëm ci gaal yi sàccuñu amuñu beneen métier lii. dëgg tey nga dooleel ñu papa ñun kontaan nañ. dëgg la billaahi wallaahi waaye si diggante màgget seen. waaw nga xam tey ku gis làmb ji mu mel nga tey ñëpp ak ko ñëpp mooy si li ma leen wax dafa ëpp lépp man ak yéen ba Modou Lo Ama Balde dinañ ci ànd xam nga li may wax ci presse laa ko waxee donc di ngeen ko tegaat waaw xam nga ngeen ko tegaat donc ci presse laa ko waxee dinañu ànd Maguette Sène nag li nga wax moom c'est la première fois ma tuddee laamu politicien première fois génnal ma archive yëpp musul am 21 ans de carrière abbé Diagne Magoune indi naa ko fi mbay euh, vieux seng seng tëggal naa ko drapeau parce que suma xarit la Kumba Gawlo sargal naa ko ndax suma xarit la mais c'est la première personne bu ma def ak moom lii man dama am ay conviction ci àdduna et je n'ai pas peur de mes convictions nit la ko xamante ne li mu liggéey ci département bi barewul ñu ko fi def ma may wax man xam naa ko et je pèse bien mes mots je pèse bien mes mots te boorewu ci ak wax ju bare moo tax tey ñu bëgg a liggéeyam nit nag du ñàkk ñu ànd dog yow loolu moom ala kulli aalin àdduna moo tëddee noonu yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne ñëpp ànd ñoo nag moom waxatu la ak ñun ay nitu kase mais ku ne rek na nga gëm li nga gëm ne ci ginnaaw bu ñu fàtte benn affaire mooy ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñoo bokk ndey bokk baay ak lu cool yi bare bare yow mii di wax ak man bu ñu waxtaanee ba sore sore am na fu ñu bokkee deret loolu buñ ko réeree mbir Sénégal dafa tuuti. promoteur yu ndaw yi CNG bi lan nga ciy wax. waaw xam bi dañ leen di doog installé mënaguma leen jugé bon Bira en tant que nit waxuma ci liggéeyam de nit laa nit ku baax bu buñ ko jàppalee épaulé ko xëy na yàlla mën na ko dimbale mu génn ci mission bi mais na déglu na déglu acteurs yëpp parce que làmb dafa doy waar. ñu ngi ciy a yàgg nag tuuti yàgg nañ ci yàgg ñu ci. 21 ans loo ci def 21 naa yaa ngi ciy bëgg a yàgg lu bari na luñ gis. ñu ci combat xamante ne yaa ko organisé mu dox ci diggante Modou Lo ak Ama Balde ñu defoon face to ñoom ñaar foo sànni mbàtt mu tag nga fas yéene defaat face to kañ nga ko fas def ak yan disposition nga ci jël. ñun daal li ñu jël comme bébét le 3 juillet lañ ko bëgg a def ci Gambie stade Bakaaw te ni ngeen ma tiimee micro yi nii noonu la ñuy tiimaatee micro yi foofu ndax yéen ñëpp laay yóbbu bu soobee amul kenn kuy des. yal na yàlla guddal sa fan. ci barke alxuraan. nga bëgg yaa ko xam yal na ko suñu borom def. amiin amiin amiin yaa ngi jàppale jeunesse Sénégal. amiin yow mii lañ war a jàppale ndax yow yaay jàppale jeunesse Sénégal. amiin amiin yow mii yaay jàppale ndaw réew. jërëjëf xeeboo kenn nii nga def ci say gis ñu benn promoteur bu koy def. dëgg la andi ko ci gox bii nga ko andi. ñu koy def ñëpp dañuy xool lii bu baax ñu def ko fa. mais yow dong yaa ko andi fii ci Nianing pourquoi ça nga choisir Nianing. waaw non Nianing moom laa pourquoi pas Nianing aussi parce que Nianing ci Sénégal la bokk si Sénégal la bokk tant que ñu ngi privilégié ville yu mag yi bàyyi yu ndaw yi rek Sénégal du avancé donc fépp la ñuy dem ah, ñun dinañ dem fépp ci suñu mbébét combat bi nag dafa xaw a mag pour gérer ko du yomb moo na maa ngi waxtaan bëgg a woo Jax biy tëgg làmb bëre simple yi ñu def collaboration ma ak moom parce que yàlla boole nañu man ak moom ñu am vraiment relation yu baax pour ñu ànd mu épaulé ma ci mbappat yi ñu ànd liggéey ko waaw yàlla mi leen dara teewul yàlla na leen yàlla jàppale kontaan naa ci